السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم mbokki julli di mbokki taalibe yi gannaaw ba nu sante sunu borom subhanahu wa taala di julli ci jaamam ba di sang ci ñëpp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dellu di jaajëfal borom tubaa di ñaan sam borom moom mi dara tawul cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir yàlla naka sam borom dolli dëgëral yàlla naka sam borom guddal fanam barki yonent yàlla Muhammad ba bépp naal gu mu naal bépp liggéey gu mu nar ngir jëmalee ko diine lislaam ngir jëmalee ko yoonu mu ca kanam suñu borom kattanal ko ba naal gi àgg barki borom Tuubaa di ñaan suñu borom ba léegi moom mi dara tawul yàlla na sam borom dolli def ci réew mi jàmm di santaat bu baax a baax cheikh Mouhamadul Mountakha ci opportunité gi mu joxaat ñu mën a màggal. wax fa dëgg yàlla loolu amuñu fayam léegi nag di leen fàttali ba léegi yéen a ngi ànd ak cuun bëgg Bamba ci Talibé TV ci seen émission safar ak di édition 2020 màggal 2020 tey nag wax fa dëgg yàlla ñu dalal ci macha allah koo xam ni kenn dootu ko présenté ci yoonu murit kenn dootu ko présenté ci ëhlu xasida muy Serigne Modou Gallass Mbaye Serigne bi nuyu nan la. ñu ngi leen di fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dellu sunu kóolite ak sunu yaakaar ci seexuna ahmadul xadim noonu la ñuy ñaanal sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mi toog jataay bi sëriñ Tuubaa yàlla na yàggal ko fi ba yàlla ya mottili ay naalam bam naal yeneen naal ci barke seexul xadim noonu lañ koy ñaanale sëñ Abou Baraka mi toog jataay bi Cheikh Mamadou Fadal waaye di ko ñaanal képp koo xamante ni sol nga saw daal tali saam nga sol ko cuun bëgg Bamba maa ngi lay ziar bu baax di nuyu nag képp koo xamante ni yaa ngi jàkkaarlook ñun ci télé bi di talib Talibé TV di la foo fépp fu nekk rek ñu ngi lay fekk foofu jox la loxo di la wax asalaamaaleykum. waaw macha allah waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Serigne Modou bu ne safar yaakaar na xëy lépp day dem ci borom tubaa léegi nag tey dañu bëggoon waxtaanee comme par exemple bu étranger koo xam ne xamul dara ci yoon murit xamul dara sax ci diine saam ñëw bëgg xam lan mooy safar. waa safar euh, benn pàcc la ci yoonu diine ndax sëriñ tubaa kenn ku ne xam na waxoon na ni lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu man dama fee ñëw rek ngi yeesal sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa kon safar benn pàcc la boo xamante ni yàlla moo ko jox jullit yi muy seen buuñaa ci yoonu lislaam euh, jaarale ko nag ci koo xamante ni mooy sunu yaakaari teeg ëllëg mooy Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ko ñaanal sunu borom yàlla na nu yàlla yokk ay leeram te yàlla taas ci barkeem damay faral di waxtu toujours ni yàlla nu yàlla fayal Serigne Touba ki bëgg ñëw nag te xamul safar mooy lan na xam na ni na rek na jiital ni xam ni mi ngi ñëw ci ndamal lislaam Euh, loo xamante ni euh, ni kon ñëpp mii ne rek xaraj ci yow ma sabti saa mi dina asar fi li xidmatil muxtaari fii sari safar sëriñ Tuubaa moo wax ni ñëw leen santale ma yàlla yaakaar naa nag bi àdduna doo rek léegi ci yonent yi ba ci léegi nii kenn mus sa wax woote ni ñëw leen santale ma yàlla euh, te boo dee xool na yi ko yàlla teg yëpp nag moom sëriñ Tuubaa mus cee woote ndimbal benn yoon waaye bi nu ko jëlee daal di ko yóbbu moo wax ni koo xamante ni sama mbég sa mbég la bu bis bi ñëwatee na nga ñëw sant le ma sa borom kon nag képp koo xamante ni dangaa jóge ca àll ba di ñëw te xamoo luy safar na xam ne daal benn pàcc la ci yoonu diine bu ñaala bu yàlla jox lislaam macha allah <laughs> yaakaar naa leer na te macha allah toll ni ku fu waay niveau bu ma nit mën a am yaakaar naa leer na pour mu dégg ko léegi nag comme ci màggal muy magal, léegi nak comme lan moy magal ci boppam. magal bat bi Serigne Touba ko ñëk gënné génne yaakaar tamit lima wax légui rek dina yag na fi waye batu magal mom ci gémmiñu Serigne Touba lan ko ñëk déggé euh xamna dinañ ci xam ci dara dal euh nit ñi bu ñëkkan gàmmu lan daan wax ak cënt mom bi Serigne Saliou ñëwé la. la la kuy def dara sax ne damay cant waaye baatum màggal moom euh, jàngkat yi dinaa dégg ñu ni euh, ñetti ñetti baat la màggal mooy miim ak euh, keef ak laam dégg naa ñu naan miim gi mooy mawlidu nabi laam gi mooy laylatul xadri keef gi mooy kazu rajab waaw kon loolu lépp màggal ëmb na ko boo màggalee yooyu yoolu yooyu yëpp da lay wuusi ndax kenn ku ne xam na ni kazu rajab miin nan ci ñun ci la seen waa ji nga xamante ni moom la ñu yaakaar ku moom muy Cheikh Amadou Fadal ci la gën jamono waaye nag lu jiitu histoire sëñ Fallu ndegam sëñ Fallu nu ko leeralal siiwal ko mais kenn ku ne xam na ni ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanan dem ca boroomam ba mu jox ko yam ko jox yëpp. Euh, layatul xadira nak euh, yalla mo wax ni khairun min afsarin mo gën wer kon yoy yep nak bu ko magal bolé lambo xamna dal nu yàlla fekk lo ñu man fekke euh te di ci woo rek ndax ñariñu l'islam la. machallah allah l'islam ak yi yep magal ayu, ci ay yiw est-ce kon ren jekkon nañu baña magal lolu mom damay jéggul sax man ci baat yi makoy dégg. ndax damay damay faral di wax ni ni tisbaar jii ma weesu nii bu ma ko julli woon dama ko war a fay noonu la màggal gi mel ci ñun waaw màggal gi hmm. wallahi alasim moo julli hmm. ñoo ci ñun hmm. loolu nag xam naa dina xaw a kawe ci boroom ñi nga xamante ni ci li nekk ci ñaari feg yi rekk la ñu jàng waaye màggal Euh, suñ Tuubaa moo wax ni déggoon ko nag dem gi wolof nasaraan te kun billaahi ñëppay dem nii raanu hmm. te gi ñu sëñ Tuubaa nag dañuy xool kan mooy suñ tubaa ba mu ñi bu du woon ak dem gi kon ñëpp dem nii raanu kan mooy sëñ Tuubaa lan war a xool ba pare hmm. kon màggal moom hmm. euh, man de dama ko doon jégglu sax ci ñu ko doon wax du debaa daal déedéet dañuy màggal gi loolu du débat Masyaallah, du débat lii <laughs> pasos Modou pas-pas bee kawe <laughs> kon wax fa dëgg yàlla ni ci Serigne Mountakha taxawé en tant que waxuma sax baatin waxuma dara en tant que un responsable man loolu da daf ma kawe daal. wa xam nga olof yi dañuy wax ni boo dee wut na nga wut kilifa gu mat kilifa Sëñ Mountakha moom masha allah rek lay wax. Mm-hmm. yàlla na fi yàlla bàyyi. waaye nag mënut ñàkk ndax kuy sa waajur Cheikh Mamadou bassir mi nga xamanteni seigne touba ko defal lepp mu yar ko tagat ko te seigne muntaxaa ku ko xor rek xamni seigne suñ ak nim tol ci yalla mom mo nu njëkk Nakh joxoñ ni suñ bu ko ndax mo tok fi ni bu yalla togon fe yonent bi tok seigne touba tok ma bayi leen fa dem ci seigne touba xam na ni lamay am ci yalla ak yonent bi ci seigne touba lay jaar moo mu bàyyi fa ñooñu dem ci seigne touba wa ndax yalla mo waxon ci alxuraan yi fa taxo taxo ilayhi wasila kenn ku ne dafa am fu nuy la say mbir ñun nak suñu mbir yalla nga ko jaare ci sëñ Tuubaa léegi macha allah Modou ren dafa melni safari ni mu xawé ñak melna nak erbi heure bi daan na fek mbedd yi di rir yoyu xaw xaw leen manké yeen jànkat yi du duñu manqué ndax euh, sëñ tuba man damay faral di wax ni ma ngi nuy sama ay wajur. ma ngi leen di ñaanal yalla na leen fi yalla baye mais damay wax ni ñaar yi ci ñoom laa koy royee mooy mën a muñ ak fidel fidèle moom ci sama baay laa koy royee waaw mën a muñ ci sama yaay laa koy royee waaw te damay faral di wax ni lii xew nii ñu tuddee ko ma corona ku ku yàlla baaxewul rek manqué nga manqué waaw manqué nga ñun nag ñi ngi ciy sant yàlla bu baax ak ñi mel ni ñun ndax sëriñ bi moom bu fekkee fekk demoo ci baas yi rek teraangaam du la fekk kon sëriñ bi du sëriñ bi waaw sëriñ bi day day fexe bàyyi ba ba gaa yi ni mën nanoo sax bañ a tànt si mm-hmm. moom moom muy ñëw te bu dee ñëw kenn du ko yëg déedéet yal nu yàlla fayal sëriñ Tuba macha allah li koy firndeel mooy am na ñu demul ci baas bi ci baas yi te sëriñ yi bee ngi leen day fekk ak fan nekk xewal wax fa dëgg yàlla léegi kon sëñ Modou lan moo la booleeg jàng maanaam euh, moo xam jàng xasida la wala jàng wala fa la oh, waaw loolu dama ci sant yàlla bu baax ci laaj bi euh, sama waajur yàlla dogal na ab jàngkat la woon hmm. waaye nag euh, mu yàlla boole woon ko ci yoonu Cheikh Ahmad Tidiane mu daan siyaar Tiwaawan hmm. maam Abdou Assis yàlla na yàlla dolli leeram moo doonoon sëriñam sama baay euh, jànkat bu mag la woon boo xamante ni ba léegi rajo yi ñu ngi teg ay bàndam hmm. waaye sëriñ tubaa soxla ko mu wuy si ko ndax Serigne tubaa moom dinaay faral di wax ni ku mu soxla midi balaa midi midi une nga wuy si ko waaw Serigne Touba soxla ko mu wuy ko nag yàlla dogal bi mu wuysee Serigne Touba nag ci nu jël ñun ñii di ak njabootam yóbbu nu ci sëñ Saliou fa lañu yàlla dogal ñu jàng fa lan fa jàng. ku miin daara yi sëñ Saaliwu miin nga boo jàngee alxuraan rek ngoon gi faw nga jàng xasaayit mm. fa ko tàmbalee ci kuréel ñibbi si nag yàlla boole noog jëmm ju baax ko ñuy wax sëñ Abdoulaye Seck maa ngi koy nuyu ñuy ànd ak moom ba yàlla dogal sunub cër ñun tamit ñëw ci mm-hmm. di ñaan tamit ñi nga xamante ni ñoo topp ci nu ginnaaw mm. te ci yaakaar ay cër yàlla na yàlla leen yàlla jox seeni cër ñu it Ah, fofu lañ jël jang ma xasaayit ci daaray sëriñ Saaliwu fa lañ jang jàng xasaayit waye olof yi dañuy wax né nak lo doon mu dëgër ñu doon ko ci sunu waajur. Hmm. Modou ban programme nga ñëk jang mu neex la lool sax. waaw loolu maa ngi ko njëkk a jànge ginnaaw raay yi fu ñuy wax mango ya ko ñu alaaji Moor Mbay alaaji Moor Mbay yàlla na yàlla yërëm ko ku ku ku nit ñi mii noonu la ci tale yi hmm. foofu laa njëkk a programme gàmm Euh, mu neex ma lool nag ndax keroog macha allah ak nit lu muy doo ko def rek nga def ko mu réussir loolu sant yàlla la waaye nag du man de sëriñ bi la ndax sëñ bi moo nam mooy tànn ña koy def léegi nag bu la tànnee yow boole la ci li nga man rek mooy delloo ko njukkal di ko sant rek. Mhm. léegi macha allah sëñ du Gallass Mbaye yaakaar naa boo ko waxee xel yëpp day dem ci sëñ Fall sëñ Modou wayoon fii sëñ Fall way gu rëy sax. <laughs> dafa mel ni. way woowu moo may lépp way woowu uh, defal na ma lu ne ci àdduna. waaw way woowu moom ndax yaakaar naa ku min way wi xam nga ni 2004 la wan. 2004 mm. ak léegi nag léegi moo am ay fan. te tey jii day mel ni tey ji la way wi génn. waaw loolu nag Serigne Fallou. Mm. ndax moo waxan ni da ngeen noon sàmba mënul kanam man ginnaaw mu ñu ni waaw mu ni ba mu des seenum sàmba daani bi mo bis boo ma may ñeen fukki at fii lay gën a xew kon loolu ci way wi ci barkeb sëñ Fallou rek lay dox. kon de xanaa amee 40 ans lay gën a lay gën a dox incha allah. incha allah taala léegi së së xilaafa yi yi nga fekk xëy na mën na mën nañ wax ni mën na ne bu Serigne Saliou wala bu Sëñ Abdou Lahad. bu Sëñ Abdou Lahad ban xilaafa moo la gën a marqué ak lu tax. xilaafa gi ma gën a marqué mooy. sëriñ Saliou marke na ma lool waaw ndax sëñ Saliou ñun ñu ko xaman ñun ñi nga xamante ni moom lañ yëkkati woon ñu doon ay ndaw ñu yóbbu nu ci moom laata muy doon sëriñ Touba ak bi mu sëñ Touba euh, moom marqué na ma lool ndax damay faral di wax ni euh, bu wax dee or noppi di jamaa sëñ Saliou nag noppi la fa jaman lépp waaw. baatam boobu moo xam daal ba mu ca jógee hmm. kenn déggaatu ko ci dara lu dul islaam ooma ci yàq ba cee defar hmm. léegi ma macha allah Serigne Saliou noppi gi léegi ci daara ja la la la ne woon di am na ay moment ak Serigne Saliou yooyu fàttali ko bu baax a baax a baax a baax Serigne Saliou toog nan ba tàyyi mu ñëw ci daara ji woon ñuy kuréel ci kanam loolu yàlla dimbaleen def defal nañ ci tawfeex ndax euh, Euh, ku miin daara yi sëñ Saaliw yoo xam ne ñetti kuréel la fay nekk gi mm-hmm. mag gi ci topp ak gi ci gën a gi ci gën a ndaw mm-hmm. yàlla boole woon man ak ci gi ci gën a ndaw mm-hmm. saa yu Musaa ñëw ñoo ko daan jàngal mi daal di àqlaam yi xasida gum bëggoon la waaw waaw noonu la demee allah léegi léegi léegi sëñ Modou euh, maanaam xëy na kaset yeeg yu ni mel jàngkat daf mel ni euh, jàng jàngkatu léegi faraluñu farataaluñu génne kaset wax nga euh, lu nek rek ak euh, période tam yakana jamono 97 man ci la ñëk jàngé cassette wa ci la jàngal rumna boole ko ak inni aqulu ak euh, yenen qasida magal 97 la ñëk jëng gene préenregistré rek mo xew mais cassette dafa dem ba légui dafa melni dafa andu am lenen lu ñëw li nu jàkkaarloo di ko wax rek bokk na ci li nga xamante ni moo gën a efficace te moo gën a tamit jotale ci àdduna bi kon jamono ji moom saa yu ne noonu rek lay demee léegi macha allah saa su ne jamono day dox léegi sëñ sëñ Modou mu mel na que saa su ne ñoo ngi gis ni euh, day gën a dox programme yi di gën a bari nit ñi di gën a soxla jànkat léegi tey ku bëgg a jokkoo ak sëñ Modou wala euh, dafa am intermédiaire ménagère wala da ngay fay wala num mu demee noonu. waaw xam nga nag euh, damaa mos dégg euh, wala sax ma fekkee. Mm-hmm. sëñ Moutalaam Sëriñ Touba waxan Ablaye Seck ne ko mbaa nit ñi duñ leen sonal ci yëf yi na ko Mbàkke dinañ ci sonal kay. mu ni Ablaye ni ngeen koy defee ni ngeen ko mane te bu leen ko defee ni ko nit ñi ndax nit ñi leen ko seen rek lay jur. waaw loolu moom maa dégg doomi wallaay naa si maa dégg doomi Sëñ Tuubaa wax ko sëñ Abdoulaye Seck maa ngi koy nuyu bu baax njàng mi nag damay faral di wax ni benn marchandise la bu nekk ci marché bi benn client rek moo koy jënd si te ki koy jaay faaw mu jaay ko client bi kon du am jafe-jafe waaw <laughs> dégg naa waaj waaw léegi macha allah ku bëgg a jokkoo ak sëñ Modou. waaw ku bëgg a jokkoo sëñ Modou Galas mën nga ko woo rek ci numéro téléphone am hmm, numéro boo xamante ni moom xam naa nit ñëpp miin nañ ko muy 77 633 44 39 loolu mooy sama numéro euh, ku ma ci woo rek di nga ci jokkoo man incha allah. léegi léegi macha allah sëñ Modou mu mel na nag wax fa dëgg yàlla soppee yi ngi seetaan euh, ñi namm sëñ Modou ci jàng yi ngi seetaan. xanaa nag dox fa dëgg yàlla du ñëw ba fii te doonu doonu ñamal tuuti ci sëñ Fallou gi يا سيدا في المعالي قل و ويا معيبا فؤادي دار مسواه إني أدد لوجه الله سائركم أبغي به النيلة ما أرجو واه bismil ilaahi ci barkeb seyxi fàddilu mi buru yàlla dollinu ay maqaama yàllaahu qalbuka ula saddaati maay bëgga way tey ji ma way fi sangub góor ñëpp yàllaahu kooka di Seex Fallu kooka mag mu rëy mbir gën ñu gën ñi ñëpp yàlla ku ni ma musu fee am mu ku dootu mi am te dootu am fii duniya wóor na yàlla tey jii ma joy seexu naa sëriñ Fallu mbër ma ni mees mbooleem lu nekk duniyaa joyni yallaahu muridi xaadiri ak tijaani ñëpp nga ak suus asamaaw sing ndoxumi yallaahu ak jant beeg weer wi ak biddi yi lépp nga jooy ak doñi ak njanaaw yeeg njaay alli yallaahu malaayika ak ak yónent yi lépp ak saba ya xuddub yaak wali yàllaahu wiital nu ruy ci duniyaa yëpp kulluma ru jooy nan ko ciy seex falli yàllaahu mboolem lu nekk ci duniyaa lépp lépp ko jooy lu nu xam ak lu nu xamul mboolem lépp yàllaahu masil na ñang moo la way way wii di sakkuy ngaram ci yàlla ak ci sëriñ Tuuba fa yàlla am naa ji moom ma am naa ji moom ma xama Seex Fall may na ma Seex Fall may na ma sari ayi furniyallaahu moo tama xam buut niya ak sañ-sañ la ko wax ak doole jàng maya ak xarbaxiyallaahu ma joy falulaay ma silla ñang na dem zaab sëriñ zaab xarit cey ma sant yàlla barke borom Tuuba macha allah yaakaar naa ni wax fa dëgg yàlla man sama xol sedd na te xam naa tamit xol yëpp sedd na léegi sa sa sa mot dafa am xëy na lu ma doon dégg ñu koy wax naan jànkat yi soxna yi dal leen xaw a sonal lool sax. waaw damay faral di wax ni ndegam ñi nekk ci naka sudul noonu sax ñoom la àdduna yi la jël waxuma laa ki nekk ci nag ci lu baax ndax soxna yi tamit kenn gënu leen a bëgg lu baax te. yàlla da leen may benn benn loo xamante ni ñu yàlla da leen ko defal fépp fu leeru yàlla nekk rek ñoom xam nañ ko bu ko defee nag ñaan rek suñu boroom ki jóg ngir lu baax yàlla wamatal la ko indil la ko ki jóg nag ngir ab safaan nga ñaan rek yàlla musal la ci ndax yàlla mooy musal ñëpp. léegi ma ma macha allah sëñ Modou sant na bu baax a baax léegi nag xëy na dafa am laaj gun doon mujje rek muy wala sax mën na bañ nekk laaj muy lan ngay dénk murit ñi ci ndigalal sëriñ bi ci tàkk masque yeeg buñ jëmee bés bés ba ak yooyu yu ni mel waaw xam nga sëriñ Mountakha comme takk na masque moom takk masque rek ay xew dafa loo loo xamante nii moom euh, damay faral di dégg ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa yëngu ci wàllu àdduna ñu nii dëkk bu mel ni Amérique mm. am na ñoo xamante ni bu nu tolloo ci élection seen wenn carte day wecc ay junniy carte xam ni suñu suñu wàññee seen wenn carte woo day wecc junniy carte mm. sëñ Muntaxa nag euh, takk maskam boobu mm. euh, gars yi jëratul sax ñuy digle ay takki masque comme sëñ Muntaxa takk na ko ñëpp koy takk incha allah macha allah si Modou lan mooy sa kàddu gu mujj xanaa sant yalla bu baax julli wat ci yonent bi rek sallallahu alayhi te delu sunu ko sunu kóolitewaat ak sunu yaakar ci cheikhul khadim di ñaanal nak seigne muntaha Mbàkke yalla na fi yag non lañ koy ñaanal seigne Abou Baraka mi tok jotaay Cheikh Modou Fadal waye di siar sama seigne Cheikh Mouhamadou murtada moom Cheikh Modou Fadal ak rakam ju baax ji soxna mam fati di nuyu ak njabotam di nuyu ñepp di nuyu rek fep foo ay nek tay nekk ak Modou Galas mi ngi ma ngi lay jox loxo te di la wax yalla nu yalla yóbbu ci magal gi ci jamm ñu dem ci jamm ñew ci jamm yàlla bu ci kenn am menn ndog ci barkeb moo Mamadou Fadal te bu buñ demee nag li tax sëriñ bi woote woon màggal gi ñu góor góorgóorlu ci mooy jaamu yàlla ak bernde waaw loolu daal sëñ bi woote moo taxan mu woote màggal gi nan fexe ba di jaamu yàlla bu baax ak bernde waaw incha allah. macha allah lii moo ne woon seen émission safar ak tey nag muy safar ak sëriñ Modou Gallass Mbaye ñëpp dégg gis nañ ko macha allah ci yar gi ci dal gi loolu la ko ñëpp seedeel wax fa dëgg yàlla kon dañuy ñaan sàmm borom dolli ko sàmm dolli ko dëgëral te fépp fa nga xam ni mbébét na ko Sëñ Tuubaa yóbbu ko fu ko kawe ngir Mbàkke moom kese fa yóbbe te moom kese fa xam di <laughs> dellu di jaajëfal rek Sëñ Muntaxaa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te gën a wér Sëñ Muntaxaa day sunu ndam day sunu sag day sunu wërsëg day sunu teraanga day sunu am day Sëñ Muntaxaa day sunu lépp yàlla na ko fi sàmm borom saxal mu sax fi dàq barke borom tuwaa ñàngum sëñ Modou Garas bi nag dama koy may ñeent ñi nga xam ne ay soppee sëñ Fall loon kenn ki sama baay la di Momar Thioune ñu gën ko xam ci Pape Modou keneen ki Papa Yoro keneen ki Caba Fadal Fall ak ku ñuy wax duut ba muy bëgg fàllu fële ca ndar kon di ñaan sam borom mu dolli leen dëgëral ba seen bëgg sëñ fàllu sax dàkk faw di leen jox dig daje beneen yoon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu سلام الذي في كل لسان وفي سفر حماني على ماء